mbokk internet yu Dakarnet ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax a baax kontaan ci topp bi ngeen ñi topp Ouzin ngeen di àndal ci seen rubrique bi nga xamante ni mi ngi tudd reportage xam ngeen ni Balla Gaye dafa jël euh, avance ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène boole ko ñetti avance yi nga xamante ni euh, jëloon na ko donc laaj bi mooy lenn bala gay est-ce que jàpp ngeen ni war na mën a euh, bëre ñeenti combat yooyu si ñaari saison loolu mooy laaj bi donte bu moo Gris Bordeaux ba léegi xamaguñu xamaguñu date bi mais laaj baa ngi noonu ñeenti combat yi Balla Gaye jël est-ce que c'est pas a dem xool gars yi sénégalais yi lan ban gis-gis ah, la jël. yéen jàpp ngeen ni 4 combats yi bi wala mënul nekk. tax mënul nekk Balla Gaye noo ko mën a bëree si saison bi. te Balla Gaye heure bi dafa magal. Balla Gaye yow Balla Gaye di xale man dama nga ne dafa magal. Balla du xale te mi ngi ñaari jabar. du xale de benn xanaa beneen bi dafa bàyyi. Balla Gaye du xale de. léegi combat ak moom Eumeu Sène Eumeu Sène bi waxoon ne bàyyi na bëreeg Balla Gaye du bëreeg moom Balla Gaye ñëwaat nanguwaat loolu noo gisee loolu. waaw mais xaalis la ay bàyyi naa bëreeg moom yooyu amu fi de fii xaalis la time is money la ñu wax mais Eumeu waaw Eumeu seexa mbër la mais tamit xaalis si la lépp xaj quoi moo tax ay kaddu yooyu noonu ay wax na ba pare loolu tamit deuxième la quoi. waa yi ñu foog ñu foog ñu taxaw la ko quoi sëñ bi ñu ngi ah, na de dina baax na dina daan yëpp dina daan yëpp. mais est que jàpp nga nekk moom mënul bëre si ñaari saison yi loolu moom mënul mënul nekk loolu moom mënul nekk. risque amu ci. non risque moom amu parce que Balla Gaye non day liggéey day liggéey Balla Gaye moom léegi day business quoi et puis combat yi na naa coronavirus bi moo taxoon ak toogaay bu yàgg ak yooyu quoi dina mën a bëre yëpp mais affaire business la Balla moom dana si génn moom incha allah na dana si génn mais nag mënul bëree moom combat yi mënul bëree moom si saison bi yëpp quoi il faut il faut mu kii quoi trois saisons yi quoi. xaaral mbër yow yow xaaral mbër ngay daw yow doo mbër eh kaay ñu ñu tëgg alors mi ngi noonu ah. jàmbaar ça va. naa si gànnaaw kóol. fan si Balla Gaye nga xanaa. fan si Modou Lo laa. yàgg na noo gisee quatre combats yi Balla jël war ko bëri si ñaari saison jàpp nga ni mën na nekk wala mënul nekk. non loolu mënul nekk de. tax mënul nekk. Balla Gaye instant yi nii mag la Balla Gaye mënul bëre ndoor quatre combats saison bi mënul sax nekk loolu lu mel noonu doole boobu amatu ko sax ak jot bi amatu ko. mais kon yow wax ni Gaston dafa jël risque quoi dafa sànni xaalisam daal ci si quatre avance yi mu ko jox ni ah man loolu laa gisee waaw sànni xaar ndax lu métti la nar a doon tamit wala bu naree doon Balla Gaye bu naree bëri. boo xoolee Balla Gaye benn combat am rek daanaka benn saison lay doon. waaw noonu la demee chaque année benn commencé benn saison bu naree bëri quatre combats xanaa day waaxu quatre combats par chaque un mois combat chaque un mois combat kon Balla Gaye bëri defet ay fan sam daw ko man moom fan sa xarañ doo laa. sëñ bi ñu lay nii dafa mel nañ la fekk nga nga ngay livré ji nii wala da nga livré ba pare. da nga livré ah mais naka naka waar yi naka dóor yi. waaw ñooy fi ñu ngi si jàmm. yàlla yàlla yoo xéwul bi. amiin ñu bokk la. alors yow ban gis nga am si Balla Gaye ñeenti avance yi bi mu encaissé si war ko bëri si ñaari jàpp nga ne mën na nekk wala mënul nekk. ah man na naa ne mën na nekk. lu tax mu mun a nekk. ah ah sport moom loolu la def métier am te moom la gëm moom la yaakaar mi ngi siy teg mi ngi siy teral waa këram ak léppam ak ay dafa may wax mën a nekk. mais gisoon c'est un parce que diggante ñaari at ñetti at du xaj na seeg yooyu Ah, donte donte souhaité wuñ dara na quand même mu am si lu lu lu safaanoog bëgg-bëggam waaye gisewuñu c'est un peu risqué surtout si promoteur bi jël xaalisam jox leen ko noonu ah àdduna moom loo gis moom risque la ne lépp looy def risque la c'est comme da ngay liggéey moom gëm-gëm ak Pastef kase nag yaay nii yaay sër yaay def journaliste am na risque mun nga dem si événement mun nañ la saani xeer wala dara ko dem moom nag moom la yaakaar yàlla na si yàlla def xéwal man moom damay wax loo xam ne jaada ndax man Balla mooy sama mbër. Oui, bon, moi, je ne parle pas Wolof, moi. Ah bon Alors, euh, vous parlez euh, français, naturellement. Alors, quelle appréciation faites-vous de la lutte sénégalaise déjà Ouais, vraiment, je tiens beaucoup à remercier vraiment beaucoup, beaucoup le Sénégal et les, les, vraiment aussi les dirigeants. C'est une bonne chose. La lutte sénégalaise, depuis chez moi, bon, je suivais ça. C'est très intéressante. Ouais, ouais, la lutte sénégalaise. Vraiment. suis togolais, moi. Ouais. qui est ton lutteur Moi, mon lutteur, c'est Modulo. ko Il est vraiment intelligent, hein? il se bat très bien. Ouais. En fait, yow dañ la laaj ci ci mbir yi Balla Gaye 4 avance mu jël yow nga ne si mbiri Modou Lo rek ngay wax lu tax lool waaw parce que Modou Lo mooy sama mbër. waaw maag Balla moom defuñu dara sama yaay nag Balla gay la moom mais Balla moom xam naa mi ngi fin de carrière jeexal na de. bu ko jàpp fin de bu jël 4 avance muy nekk fin de carrière. Balla xaalis lay wut rek time is money kese la Balla di wut mais pas bëre bi bëre bi daal gëw ma ni Balla ci loolu lay dugg quoi gëw ko waaw gëw ko. parce que Balla boo xoolee jeexal na pour man amoon na avis nag waaw malgré mi ngi rey boppam di entraîner mais pour man jeexal na loolu mu dugg muy yooyu mu bugg jël xaalis moo ko si dugal te wax na ko la preuve en est wax na ko. a euh, seen mi waxoon ni dootul bëreeg Balla après mu nanguwaat ko di bëreeg. ak Balla ñooyam rek jeexal na nañu ci làmb ji xaalis la ñuy wut time is money Eumeu Sène Balla Gaye euh, Gris Bordeaux ñoom ñëpp jeexal nañ ci làmb bi booy yi daal ñoo fi nekk làmb bi moom. ku yóbboo di di parier ci boy yi. dëgg la Eumeu Sène bi Eumeu Sène nag revanche bi Eumeu Sène ne woon dootul bëre ak Balla bu jékki-jékki rek nanguwaat wax waxet boobu noo gisee. ah boobu waxet moom <laughs> fii moom lay nga fekk moom suñu maam def na ko bi Abdoulaye Wade ah Macky Sall def na ko même chose xam naa daa xool xam ne bu jëloon risque bu bëriwul mooy loolu du am moom la def métier te moo Balla moo fi sës dañoo may changé ñu daanaat ko. dernière ah, la amul Euh, VIP di bëri seen biir nii noo ko noo gisee war a bëri seen biir deux ans ba trois ans loolu noo gisee booy ñaar rek lañ ci may sens Ama Baldé Ama Baldé mën nañu ko bu ñu tuddee may sens. waaw ah, loolu moom su ma sa yoon moom dañuy may xale yi ñu yéeg moom wax dëgg yàlla loolu moom gars yi war nañ ko réunion xale yi yéeg combat yi mun a neex bu ko defee gars yi may xale yi seen sens. mais tamit na jël combat bi mu bëre rek Balla Gaye tamit na jël Modou Lo parce que Lo roi des arènes ñoom ñoom ñëpp ni ñu bëreendoo seen biir noonu 4 4 boo xoolee Balla Gaye ak Bombardier Balla Gaye Eumeu Sène Balla Gaye ak euh, Gris Bordeaux ñoom ñëpp ñu war a bëreendoo seen biir noonu xale yi tamit benn boo ñaa boobu lañ ci jox sansam yow loolu noo ko gisee. non loolu naa gisul parce que ñetti mbër yooyu kese nekkuñu si làmb ji quoi boo xoolee bala Gaye Modou Lô Eumeu Sène chaque année ñu boole leen ñu bëre te dañ kon ñu de ñu boole leen tournal ñoom ñetti ñu bëre ko loolu laa gën a gis ne dañu war may booy chance booy ñëw bëre booy ñu ngi si làmb ji tamit wala ñëpp war a jàppale seen parents yi mooy loolu noonu làmb ji mën a avancer gisoo loolu wala. non ama seen laa faral mais Balla moom sama la Balla na bëri moom mais Balla moom yaakaar na dana si mën na moom moom caay-caay bëri mën na ko te et puis si des moom mooy loolu moom ñooñu jaaxaloon leen. mais gisoo ni VIP ñoom ñëpp ñu bëgg a nekk di bëreendoo seen biir presque fii ba deux ans wala trois ans booy duñ ci am problème. parce que gars yi war a jël booy booy a jël ñi bëreeg booy làmb

booy ñaa mu ñëw booy jël seen chance foofu la làmb gi war a toll mag ñi nu xam ni mag la nu jeexal nu gisoon làmb da ci xaw a perte parce que Gaston ñu ngi naan dafay ñëw pour suqali làmb mais est-ce que suqali làmb mooy tëgg ñi loolu noo ko gisee. Ah, ñoom ñëpp seen intérêt la ñuy xool il faut tamit nu bàyyi mag ñi ay Gaston nu jël promoteur yu ndaw yi ñoom nu favoriser leen ñoom ñuy tëgg grand combat parce que ñoom ñëpp xaalis la ñuy wut ah, Gaston ñeneen ñi ñoom parce que Gaston loolu mooy intérêt waaw li mu mën convaincre ci mag ñi mënu ko convaincre ci ndaw yi moo tax mu delluwaat ci li mu xam mooy dem jël mag ñi jël Balla Balla poulain am la doomam la poulain am la Eumeu Sène poulain am da koy déggal donc lu mu wax rek ñooñu dañuy nangu. on siffle en même lui il attaque voilà et aussi il n'aime pas la défaite lui il aime beaucoup gagner voilà voilà c'est ça un peu. Est-ce qu'on t'a dit, on t'a déjà dit que tu ressembles à Modou Non, jamais. Euh, bien, ben oui, pourtant vous, ressemblez bien. Ah bon? là bon là. <laughs> alors Modou Lô a un combat avec euh, Amabal. Tu connais Amabal Ouais, ouais, ouais. Combat, euh, disent que, certaines personnes disent que c'est un combat à risque. Donc, que vraiment, je vraiment un combat à risque. Parce que lui aussi, c'est un bon adversaire. Il se bat très bien. Mais bon, actuellement, je que bon, moi, compte beaucoup sur Modulo. Parce que actuellement, il est le roi. affaire da maa fi yàlla rek. teg dem moo xew de teg dem. yàgg na teg paa mu yàlla. njub mu ak teg paa paa gam-gamal xaal mu yaa fu waay jaar yoon la billaahi dañu nag jaar yoon la billaahi merci beaucoup <laughs> noonu alors mbokk internet yu euh, yéen a ko gisandoo noonu gis ngeen euh, laaj baa ngi noonu gis ngeen sénégalais yi gis bi biñ ci am ñeen ñi jàpp nañ ñi mën na nekk mais également laaj nañ ci biir wax ji laaj nañ leen tamit ni ñoom euh, VIP bu ñu bëggee di nekk di bëri seen biir est-ce que xale yi dinañ am occasion pour gaaw a yéeg est-ce que xale yi dinañ mën a yéeg donc loolu moo nekk tamit euh, laaj boo xamante ne gis ngeen waa ji tontu na si euh, ñeneen ñi tamit gis nañ loolu mënul nekk ku nekk rek ak xalaat bi nga xamante ni moom nga ci am loolu moo nekkoon également euh, seen rubrique reportage ngeen ci doon ànd ak Ousan Dieng ci sama doomu ndey sama frère di warkat waaw sama xarit la waaye day may war léeg-léeg daf may war alors ngi noonu merci beaucoup jaajëf